fait par les sénégalais exclusivement pour les sénégalais Mouhamed maa koy wax sànq mën nañoo làmb oustaz tuuti xool suñu diine ji tey lan la ñu ci oustaz euh, dencal. wala lan fan yi dafa am benn way buy def buzz fan yi ci réew mi. bu dee ma laaj rek. daa am benn way buy def buzz. Mhm. waa ak lu bëri way ko. ñu ne di xamal ñi ngay yóbbu. waaw des fois nga yóbbu ay boo yu cool. est-ce que duñ ko duñ ko déglu tuuti ay boo yu xaw ma lan Mawti xamal ñi ngay yóbbu. est-ce que yàlla. <laughs> gis nga Momo. way nañ ko de. parce que damay faral di wax ni kuy ku li ëpp bok ci jeunesse bi wala man ma garantie sama bopp. Hmm. baatu oustaz dang koy dégg mais tant que yaangi dugg di xol parce que application yi dang koy am da ngay am TikTok da ngay am Facebook parce que mëno di nelaw di war ñi xol gis na ci ñi ci def challenge lañ wax. Hmm. gis na ci ay xalé yu bari def ci challenge momo mbaay gi nga ni bokku na ci gëna a dé hmm. TikTok. a Mm-hmm. bokk na ci gën a gaaw a dee. waaw di feeñ te amoo gaa Ibu. bokk na ci gën a gaaw a dee di feeñ te amoo gaa bokk na ci di gën a gaaw a dee. ñeme changé yére di ko tik TikTok bokk na ci li gën a gaaw a rey. te amoo gaa laaj. xam nga lu yonent bi wax. Mm. nee na sama xeet boo leen xaajee ñett benn xaaj bi bëtt leen yóbbu ak làmmeñ. al aynu xaqun yonent bi nee na catal bët dëgg la bët. nit ñi xàmmeewuñu zan ku rab jàpp ak ak ak ak euh, ku liggéey ak ku cat jàpp léeg-léeg ibu di nga dem ci sëriñ mu ne la dañ laa liggéey fekk liggéeyuñu la catala sonal léeg-léeg nga dem ci sëriñ mu tuumaal ku la bëgg sopp la fekk kenn liggéeyu la da ngaa amee rab dëgg la léeg mu ne la da ngaa amee rab fekk amee woo rab dan laa liggéey léegi nag bi ci gën a garaaw bi ci hmm. gën a garaaw ba gën cee garaaw ba gën cee garaaw mooy cat. Hmm. na yaa ngi dégg. bu baax yonent bi nee na bari na sama xeet. Hmm. boo leen xaajee ñett euh, ñu mujj ñuy dem bourgeois yonent bi nee na bëtale ni yóbbu ak làmmeñ bu ma gisee xale yu jigéen ñi ci tiktok bi te ma xam ni julli juróom sax mataluñ ko wala amuñu cëslaay 24 heures vingt 24 ñu ngi tiitaroo am 1000. un million ñu ci bëri setuñu sax. un million. j'aime la ñuy wax abonné. te te te te kenn ku la xool kenn ku la xool ni diw dafa rafet bàyyi na fa cat. Mhm. keneen wax ko. Mhm. kon jàppal ni boo amee mille j'aime am nga mill cat cat te moom moo wax naa la fi yooni yooni yooni yooni yoon mhm. nee naa la jigéen bu am jëkkër. bu jëlee photom dugal ko internet beneen góor bu dul jëkkëram te yell ci moom takk bind j'aime yàlla bindal ko bàkkaar moom ndaw sax kon yow mi am tiktok te am jëkkër saa yu góor nee j'aime commentaire yàlla bindal na la bàkkaar na fi jëy yaa ngi dégg waxar na fi buyutikunna yaa ma xuloo nag de wala tabaruj na tabarujal jaahiliyatal ah, ula mawti xamal ñi ngay yóbbu léegi mawti xamal ñi ngay yóbbu fay nga yóbbu ay booyu kuul wax naa ko ñoom ibu bu yàggul ay booyu malakal mawti na fi. Euh, non non na fi xaaral. non non oustaz. na que da nga wax lu ma intéressé nag. non non may ma rek parce que boo nee. ndiir gi ngay sekk ngay. sekkal ni ko nii jigéen bu fotowee boppam. daal di koy dugal internet. waaw bu ci amee benn góor bu commenté. da ciy am j'aime. te yow njaaloo woo. waaw te dañ ne njaaloo mooy bàkkaar. loolu dafay créer aversion ci sa bopp. dañ ne boo amee jëkkër laa takk la buus naa bu laal bu jege. mais xotoo xanaa bu ñëw laal lay waxuñu la boo amee jëkkër boo amee jëkkër xanaa xamoo ni. ma jël sama loxo jël sama loxo jox la ko yow yàlla bindal na ma bàkkaar. yow man bu ma jëlee sama loxo jox la ko te leewoo ma. Mm-hmm. doo sama soxna. du koo xamante ne araam na pour ma takk la ki nga xamante ne araam na pour ma takk ko araam na ma jox ko loxo gis nga hmm. boo akolaatee na fi yàlla bindal la bàkkaar man mii waaw comme ni ngay tooñantee xëcc saan ni ko kaay toog nii uuf ko nii yàlla bindal la bàkkaar déggoo ma waaw baax na rek mujjee dugal mhm. euh, ça a fait énormément de discussions sur l'étoile man gis naa fa plus de mille commentaires waxar na yàlla nee na sax leen yéen jigéen ñi fii buyuti kon na ci seen kër yi xanaa xamoo ni hmm. ah, chaque jour bàyyil xel baat bii ma lay wax boo dee feeñ tele ñi ëpp ñi lay sopp mooy ñu yëgul seen taar ndax jigéen ba xawee yëg taarum rëy topp ko dalee rus wax nag maa neex mm. bàyyil xel li ma leex bu baax mm. mm. mbooleem kuy feeñtale tey góor laa wax boo gisee jigéen ñi ëpp ñi intéressé wu du ñu seen taar yéem mais jigéen bu ko taaram gu yéemee li koy gunge ànd ak moom mooy mooy mooy kii bu ma fekk siwul du ma ko fekk si modeste du ko yomb gis nga ñaar ñii seen sëy du yàgg jigéen du yëg taaram ak gu bari alal te ñeme fo ñaar ñooñu bu ñu dajee bu ci yàlla jàppul sëy bi du dem ndax ndaw si day jàpp ni lambu ma saa yu ma génnee gis ku ma takk waa ji day jàpp ni heure bu ko neexee war naa mën a takk soxna waaye mawti xamal ñi nga yóbbu dinaa la jox ñaar. Hmm. xam nga malaakal mawti. lu tax ñu tuddee ko mooy malaaka mi yor dee. malaaka yàlla mboole malaakee gis nga ñoom ñi ko way bu nu xamoon ni malaaka mi toll xam nga tey oustaz Mouhamed Mbaye bu daje woon ak Balla Gaye fii ci bunt bi. booy yu dégg yuuxu yuuxu kan ngay dégg. oustaz oustaz mu dootuñu xool at yi kattan nga la xool ah bala ni mu toll xaw naa rek oustaz wala Modou Lo wala Yékini wala keneen. ma gis nga Jibril Jibril mi daan ñëw ci yonent bi. di indi euh, message yi. da daan naaw diggante asamaani juróom-ñaar ba ci suuf benn seconde mu xëy ni yàlla mawti mi booy yi wax yàlla dama bëgg nga may ma ma visite malaakal mawti yàlla ne ko may naa la ko demal xam nga fu mu déparé ci kaw bi. Hmm. pour visite ko mu naaw cent vingt quatre mille ans mënta egg ci bakken bi te benn seconde la wër àdduna benn seconde cent vingt quatre mille ans mu wër ko mënta départ ci tuñ bi ba egg mu décroisé bàyyi kon malaakal mawtu toll bu nu dajale woon géej gi ci àdduna bi yëpp bu ko sottee ci digg bopp bi doo gis toq ndox doo gis ndox malaaka boobu nee na ñaar laa mës def ci àdduna yàllaa koo ba mu ñëw ni ko malaakal ni ko kaay ni ko ndax mës nga am yërmande mu ni yàlla bindoo ma pour ma am yërmande ndax na yónnee nga ma nu ne ma ya ko waaye buma don am yërmande mës nga ma yoni ci benn jigen ju and ak jëkkëram ci àll ndaw si tollu diggante bi ni dox ci digg àll bi di gëna sori seen waxtaan di neex bayiwul xel ni sori nañu dëkk bi bi ñu ba ci mbanni moy moy moy moy moy ci àll yaa mat dikkal ko bi koy mat dikkalee mu teud fi muy di matu fa la benn jaan wëree matt bi nga di yéeg bi muy wër bay tolloog yaay ji di ko màtt tombeeg doom ji judd ñoom ñaar ñëpp jaan màtt leen dangar ji di yéeg bés boobu bi nga ma yónnee ni ma naa dem jëli ruuxu baay bi ak ruuxu yaay bi ba ma jël leen ñoom ñaar ci àll bu sori lool baay ak yaay ma geesu gis xale bi ay melentaan wër ko yërmande boobu bu ma ko doon am bés boobu laa koy am. Hmm? benn yoon boobu. te jël na yóbbu te jël na yóbbu. te xale bi problème bi mooy ku ko war a nàmpal ñaareel bi ay melentaan commencé nañ koo wër di ko yéeg te xale xamagul fu muy ci kuy doog a judd. sangoowul changé wul mën naa baras di ko daanu yàlla ni ko ndax mës naa la yónnee mhm. nga ragal mu ne ko yàlla bindeewu ma ragal ndax du ma gis ku ni ku bët ku dul yow waaye bu ma doon ragal maa ngi fàttaliku bés mës nga ma yónni ci benn buur buur boo xamante ni dëkk ba mu nekk dañ ko bëgg ba amuñu ci moom sago bi mu feebaree ba tëdd ci lal nga ni ma naa jël ruuxam bi may naaw ba yegsi gis naa garde yi escorte bi ñu ko escorte bari na ba yéem ma ba ci lal bi mu tëdd ñu ngi yor seen ay xeej jàppoon naa ni bu may dugg xeej dina ma jam jël naa ruu gi ba génnaat ak ni dëkk bi rëy ni dëkk bi toll bu ma doon tiit bis boobu dinaa tiit yàlla ni ko dama lay laaj ndax xàmmee nga ki nga doon jël ruuxam hmm. mu ne yàlla xaw ma ko yàlla ni ko gis nga liir ba nga rayoon ndeyam ak baayam te amoon ca yërmande liir boobu laa sàmm dugal ko cim réew ñu sopp ko ba amuñu ci moom sago ma sàmm ko man yàlla ba def ko buur hmm. léegi bu fekkoon mawti ñaar ñii ci àdduna mënoo leen tudd boo boo leen tudde noppi hmm. bourgeois boo leen tuddee noppalu Firawna ba tey dencuñu ko fu ne nekk ñëwul Égypte yaakaar naa Égypte laa dégg ah dégg naa dañ koo exposé xam nga exposé bi du force dañ koo suul mu sulleeku ñu suulaat mu sulleeku suufa ko gedd ñu tëmbal ko ci géej gi géej gi génnewaat ko parce que yàlla namm loolu ci moom ngir nit ñi mën a jàngat aaya hmm. gaa ñi defar ko ba mu jekk teg ko hmm. waaw bon gi mu bonoon بيم جمانوم وابو موتي خمون نمي راي دينا راي ملاك الموت موم دينا دينا دينا راي فرعون يونتي صلى الله عليه وسلم يلا بن يلا موسى ديسكوتي اك ملاك الموت كاي نيوخ تا موي بيس بي يونتي بي وري ген ادنا ام 63 زان يلا ني ملاك الموت يونينا لا فونه نك خمغو ملاك الموت موم موخ لا بن افير بو غراو كين كو نيك سا يو خيي دينا تيم سا بوب 70 fois di xol ba xam tay nga wara dem leg leg mu xol tourner sa bop yeungal yeen say nga tissu li fek mo yeungal ruugi heure bi jot mu tek nga ne chef ne alhamdulilahi rabil alamin fekk dafaa jaar benn nit bu ne laa la wax kenn ku ne malaakal mawti da lay tiim soixante-dix fois ci journée bi xool saa yooyoo da ngay dem wala benn malaakal mawti am te benn seconde bu ne cent vingt yóbbu benn seconde waxuma la waxuma la minute waxuma la heure seconde bu ne cent la malaakal mawti yóbbu bu ma nee la cent vingt quatre nit ñi la kon jeex nañu bu yàgg jëni ci la bokk ginax yi ci la ñu bokk muus ci la ñu bokk leneen ak leneen mais daal seconde bu ne cent vingt mille bakkan lay ravagé seconde léegi yow ngeen ko xamal ñi ngay yóbbu te yow bokk ci ñi war a dem te bu guddi jotee yow li war a dal niw yëpp dal na la ndax yow yaa ngay nelaw waxatoo gisatoo déggatoo defatoo dara mais gis nga yàlla benn yoon bi mu communiqué ak moom mooy bi yonent bi war a dem mu ni ko kaay fu ne yónni naa la fa kër gu ne dugg nga fa mbolo mu ne jaar nga fa waye ma ngi lay yoni ci ko xamanteni luma am ci àdduna moom ko gënal niko dama lay yoni nak ci ko xamanteni ni musuma musuma doxalante sama digënté ak moom lu ko naqari maa wa daaka rabu ko ma xalaat dang ko wara da nga wara jël ruham a midi et demi wala une heure niko dama bëgg bo duggé Medina na nga soppeeku yor jëmmi doomu adama bo ñëw ba ci buntu kërëm na nga fëgg amo droit dugg rek ak parce que kilifa la té ah ma bind nak moma ci gënal fëggal malaakal mawti kër yonent bi rek la def démonstration doomu adama fëgg Fatima ibbil ko xamul ni malaakal mawti la mu ko koy seet mu ko sa baay Muhammad mu ko mas'ulun ala jismihi sama baay dafa tawat def na ko deux fois troisième fois bi la def grimace def jëfu malaaka comme ni nit di tiitee karaw bopp yi taxaw xetu malaakal mawti xeeñ yonent bi fa mu tëdd yonent bi xamni ni malaakal mawti la mu aisha parce que booba febar bi jekku na ko munul wax ci kaw mu aisha demal nga xol Fatima kumuy waxal ci biti mu dem ni ko bàyyi Fatima benn arab lay waxal mu ni ko nekkoon a jàll si bi ma laakal mawti ñëw ci saa si la ko yonent bi ni ko ji zairan jita zairan am xaabidan mm. da nga ñëw pour seet si ma wala da ngaa ñëw pour jël sama ruu mu ni ko ñëw naa pour seet la mais bu la neexee ma jël sa ruu tey tey yàlla nee na da war a dem tey waaye bu dee da ngay dem tey yàlla nee na bu la neexee nga dund ba yomal xiyaam waaye doo dootoo nekk yonent waaye nubuwa bi nga yore muy yonent 63 ans tey tey tey lay yem mm. mu ni ko may ragal ci dee aadama dem na Moussa dem keneen dem keneen dem te li lay wan ni waaye li tax mu doon dansé bu njëkk ba nga daan ñàkk nit di ko jooy ay weer mais pour wax la ñu ngi jëm yow mal xiyaam moo tax déegi léegi yàlla day taxañ àdduna xolal boo ñàkkee nit altine talaata àllarba mooy ñetti fan yi ci ngay gisee nit ñi commencé dagg ci yàppi naan ndeysaan oustaz Mouhamed Mbaye aka neexoon moom dem na nii rek ndeysaan pourtant nangam nangam hmm. xam ngul tax parce que taxañu yow mal xiyaam moo jot léegi malaakal mawti ñëw ni yonent bi da war a dem tey <coughs> bu la neexee benn question la ko laaj xam hmm. ni ko ana Jibril parce que Jibril moo daan ñëw mu ne ko Jibril de asamaanu juróom-ñaareel asamaanu juróomeel asamaanu ñeenteel ñoom ñëpp daje nañu du teeru sa ruu asamaanu benneel asamaanu ñaareel asamaanu ñetteel ñoom ñëpp ñu ngi asamaanu ñeenteel uurul ay ni ya ci aljana ñoom ñëpp defaru nañu ña ngay xaar lal nañu tappiya innal jinaana ala tazini yawma qudumi ruhihi taarika dunia ala zulami defar nañu yëpp ci la malaakal mawti doogay ñëw nag xolal te attention de laaj na ko dégéré dee ni mu toll gis nga booyi way way boobu bu ñu xamoon sukuraat mu toll mm. duñ woo malaakal mawti moo di xamal ñi ngay yóbbu. moo est-ce que xam nga dégradé ñaata la xam nga ràbb ràbb ràbb yu sew yi. ràbb benn ràbb 3 mètres xam nga man matuma 3 mètres. ràbb bu mat 3 mètres ba muy 100 ràbb ñuy tàngal ràbb ba mu xonk cur. ñu roof la ko ba mu sedd ci sa yaram ñu rocc. Hmm. roof beneen ba muy téeméeri ràbb sukuraatu ko gën a métti. nga ni ma. xam nga ràbb 3 mètres ñu tàngal ko mu tàng ñu roof la ko ba mu sedd ñu rocc teg nee. jël benen rabu roof la ko bam sedd bo gisee ku génn aduna tim ko xol day xol ben côté day ngang parce que gis na lu musta a gis. Mm-hmm. lu yéeme gis nako malaka malaaka mo ci gëna reuy mo ci ëpp katan te buy ñëw ni yaay di fobé dom non la lay def gis nga bu ñëwee dalay maf ñaan lal bi nga tëdd dootoo ko gis. nit ñi wax ak yow naan la yaangi ngi tane nga yëngal bop fekk malaakal mawti nga bo bu ne aljana nga jëm ci sa sukura dala koy wan bu ne da nga wara dem fenen yalla ñëpp dem aljana dala koy wan pourtant yonent bi fukki malaka ñoo tey ben loxom xam nga dafa ni malaka bi deugere de wax mako muniko comme téméré rab ci nattable mu ni sama sama xeet yëpp jox ma kenn ku nekk 99 vingt dix neuf ko fukki malaka ñu téy ben tànkam fukko téy benen tànkam fukko téy ben loxom fukko téy benen loxom ñaar fukko tok ci dënnam xolal yonent bi ak ni mu baxé nga xamni yàlla néna ko mala tanal sama bop Mustafa musu ko xalat ñaari yoon la musa gis fo dem ba ci dem nelaw ci saa yewu à l'âge de 7 ans l'âge de 12 ans mu xamni du cëram bii xale la bii mu ngi def commerce mu ne kon man lii du sama cër ba ko jaaraatu ci xalaataatu ko waa kooku bu fekkee ne mooy sukuraat yonent bi xonk na changé na ci biir sukuraat woo na Aïssa soxnaam naay ko ni ko yaa Aïssa thabbit nil maa kaay nga sotti ma ndox inna fil mawti la sakaraatun yaay bu xamoon bés bi doom di njëkk a sax bëñ métti bi ci ne du bëgg am doom moo tax yuy di sotteeku mm-hmm. doomu aadama bu xamoon départ sukuraat yàlla nga koy déparé ci baaraamu tànk bu sew mu jëm ci baaraam yi ba mu jeex mu dem ci yeneen baaraam yi yonent bi melokaan bu ne melo na ko ruug yi ñëw na ba ci ndigg li ñëw ba ci dënd bi dafay wax a Aïssa di ko téye naa koy Aïssa sa bit nil ma akaay nga sotti ma ndox inna fil mawti la sakaraatu naka te dee méttiwul sukuraata métti bi bi ruug yi demee ba tull ci put gi nag ca la yàlla nii ah ana médecin yi nga xam ne dañoo amoon diplôme qualifié mm. ana moccukat yi ñu doon wër seen kër yi yéen ñi doon wax naan da ngeen a ay lu ngeen mocc mu tane man yàlla toll naa ci boli doomu aadama ana moccukat yi bu dee ay ngeen ñëw mocc mu dellu hmm. yéen ñi nga xam ni façon fikir bu dee am ngeen ko bu dee ay ngeen ñëw leen yaa doon tiitaru ni na moo dara yàlla ni toolu nga sukuraat tey na mu dara yaa ni suuf soo xamante ni da danga koy mm. karo mm. yaa doon yàlla ni ah, bu kilim amul tey lañ lay teg kalaas kalaay sa balax di taraki wa boîte de nuit fecci ñu tàng jër ñu génn ñibbi ne dafa tàng supporté ñu ko. waaye léegi nag te daal xamal dara na fi. bàyyi nga ne taar boo dégg ci àdduna taar. taar boo dégg ci àdduna jàmm ko lal. xëy bind seen hmm. fena bi plus jamais du ma duggati ci tàngaay bi. genre déggoo ma de. taar boo gis ci àdduna jàmm ko lal xam nga ni bën buy metti àndul ak maquillage ak lépp a leebu. wallaay dëgg la. ah bën buy metti àndul ak maquillage ak leebu loxo bu bëy àndul ak dem soirée. parce que ñëpp ay nelaw guddi gi yow doo nga gàddu sa bés yàlla ni ndeysaan xoolal lenn laa jël ci sa ay cër am lu ma ci toqal mënatoo nelaw. nga am 32 ans ma jël ci benn képp am lu ma ci toqal mënatoo nelaw. bañ bi commencé néewi nga sekki ci saa si.